Muhammad

وباب وسيل وسيلة إلى خير Thank you. وقد وقلوب

لخير الورى منه حسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب ليس يعلم نجي قريب ذاكر وهو ساكر جواد كريم مكارم نقي تقي صالح

نجيب مسرسب مزيع ملاذ نزيب حسيب هدايا مقدم هو الناس والنساء نبي له زان عزيم مبين هو المصطفى المختار مجيد المجيد المحسن من له مؤلم ومقال هبالي وإبقائي وفوزي بلا غنى بكوني ادخلوا النبرة من جيب ركبوا ساعة كبيرة في قادة الأمة نويت alim mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax du leen ziare bu baax a baax a baax tey di ziar bi nga xam ne ziar anduleel waa daayira Mafatihul Bichri bi nga xam ne ñoo féetee Touba Parcelles Unité 5 ñëwoon fii ci Touba ñëw fii ci Daaru Minam ngir jébbal seen addiyee ki nga xam ne moo fi toogal cheikhul xadim muy cheikh al muntaxa al basir al xalifatul am li tarixatul muridiya daara ji nag àndak ak mbooloom yëpp si eh, jëwriñ nga xam ne mooy njiit gi ànd ak ñëpp ñoo xam ne ñooy responsable daara ji ngir ñëw teew fii ngir joxal seen yi ki fi toogal sëñ tubaa ah addiye nag dafa nekk loo xam ne sëñ tubaa da koo tudd kon loolu day day nekk loo xam ne dafa war ci bépp taalibe na bépp daara ndax tuuba li abdi muridin saadihin lahumoo bi xidmatin aw bi xobbin aw hadiyat kon addiye day farata goo xam ne murid gu ne war nga ko joxe kon tey yéen gis mbooloo mi noonu ñuy soog a agsi fii nga xam ne mooy Daaru Minam ngir fekk bi sëriñ bi ngir jébal ko àddiyee ndax naal yi nga xam ne naal na ko muy université bee nga xam ne mi ngi ci Touba nga xam ne mi ngi koy mi koy mi ngi koy liggéey daanaka ak yeneen naal yi nga xam ne yu bëri sëriñ baa ngi koy naal ngir jëmmal Touba ndax sëriñ Touba daa ñaanoon lépp boromam kon nag ñun taalibe yi ñoo war a gën a laxasaayu bu baax a baax a baax àddiyee gi ñu am ñu koy indil sëriñ bi kon bu ko defee rek dañ leen di bàyyi ak mbooloo mi ñu daal di dugg ndànk ci kër gi daal di gis sëriñ bi daal di koy jébal addi bi kon ñu xam ne kon itinéraire itinéraire bi mooy tey nañoo njëkkee fii nga xam ne mooy Daaru Minam bëgg nañ bu ñu fi jógee incha allah ñu jaar fële nga xam ne mooy njaareem tamit euh, muy bërëb boo nga xam ne bërëb bërëb bërëb bu am ay jeexitan la ndax sëriñ bi wax nañ ni def na fa fukki at ak juróom ba foofu la wuy jee suñu borom ay moo am ay pàkk yu am solo ñu ko ay bokkoxatul mubaarak yu bari yu fa ne yoo xam ni day baax murit bu si ne nga xam jeexital yi nga xam ni sëriñ bi bàyyi na ko kon dañ leen di bàyyi ak mbooloo mi rek ñu daal di egg ci biir kër sëriñ bi daal di koy jébal liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jël kàddu gi moom mënu see ñàkk ndax faaw ñu fësal yéene fësal mbégte mi ndax amaana bu fekkee mënta feeñ suñuy jëmm sax xëy na dina feeñ suñuy kàddu waaye nag euh, ziar bi xëy na waaj nañ ko lu yàgg a yàgg a yàgg muy am ay ngànt ak yu demee noonu waaye tey jii ñëw gi ñëw mujjee naa kawe njort ba ñun sax mbégte mi ci àndal daanaka kéemtaan la daal waaye daal mbégteem kese la te bég nañ lool waaw yàlla na suñu borom nangu ziar bi yiw bi mu tasaare ko ci àdduna bi yëpp mu doon ay xéwal ay tawféex ak taysiir ba ñëpp yëg ko daal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. di wax ci turub ma Mafatihul Bichri Touba Parcelles Assainies unité 5 bis bi nag da di bis bu mag boo xamante ni que waa daara ji yëpp ñoo ànd maase tey di siyaar si ki fi nekkal sëriñ bi di a Cheikh Mouhamadul Mountakha ñu koy ñaanu suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naal yéene ko maamam Cheikhul Khadim moo àggale ko di ko ñaanal sëriñ am di mu sëriñ Modou Menda Fall yàlla suñu borom yàggal leen fi lool te wéral leen bis bi nag da di cant rek di bisu mbégte waaw ñu kontaan ci lool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 muy Touba Mahrousa ngir ziaral ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou Mbacké eh, ña ngi koy ñaan suñu borom yàggal ko fi lool eh, te may ko wér ba naa li nga xam ne naan na ko mu yeggale ko ba naa yeneen naan naka noonu dañuy ziare sëñ di Modou Mbenda Fall moom it di ko ñaanal suñu borom eh, yàggal ko fi lool ko ba yan bi nga xam yenu na ko suñu borom mooyal foofu ginnaaw loolu ñu am mbégte lool lool lool ci ziare si fii ci barabu tedd bi nga xam ni muy Touba ñëw seet ziare si ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bassirou ndax euh, dafa am solo lool ndax yoonu murid li ñu ko xamee mooy euh, joxe addiye ak dem euh, li nga xam ne moom mooy mooy mooy ziar kon ziar dafa nekk lu am solo ndax comme ni ko sëriñ bi tënki woon ci bayt yooyu nga xam ne wax na ko inal zine ila sar saaraxat xasadu ziarati faaraqu aw saara kon yàlla na suñu boroom defal ci loolu nga xam tënkoon na ko ci bay di nga xam ni euh, mag ñooñu nga xam ne dañoo jégoon euh, fii ci Touba dem ziare ji ko foofu nga xam ne fa la nekkoon gànnaar ca Sarsara kon yàlla nañ suñu borom defal ñu si tawfiq euh, ci ziar bi nga xam ne ñoo ngi koy ziar seen Mouhamadou Mountakha Bassirou suñu boroom nangul ñu ko ndax comme ñu ko waxee rek rek taalibe moom loolu rek la am. يكن بالمسرك لم يكن ande so النزول هديات الخسر بلا رد كان te liggéey Sëñ Tuubaa ñun taal bi Sëñ Tuubaa rek ñooy fexe ba mu ñun ñooy fexe ba warta taxaw ginnaaw loolu mooy bëgg-bëggu sëriñ bi te jàpp naa li bëgg-bëgg sëriñ bi ñun kenn ku ne war na cee xar sa bakkan bi mu wooyee sëriñ Cheikh jox ko ndigal ne ko dama bëgg waxtu yi nga xam ne mooy waxtu liggéey saa yoo xëyee nanga ñëw fii ci mbaar mi bépp daayira boo xam ne bàyyeekoo na ci ay gox yu fasanti ko ak fu mu mën a mën a jógee ngir jëmmi Sëñ Tuubaa na la fi fekk ngir jëmmi Sëñ Tuubaa bu ñëwee lam yor di liggéey Sëñ Tuubaa na ko teg sa loxo leer na ma ne bu ko tegee sa loxo teg na ko ci loxo Sëñ Tuubaa kon nañ jàpp ndigal loolu ndigal lu luñ mën a am ci kaw suuf ndigal li mooy li ko gën a kawe te ndigal lii nga xam ne mooy ndigalu sëriñ bi loolee mooy li ñuy jariñ àdduna ak àllaaxira te sëriñ bi wéetal gi mu wéetal boromam kat suñ njariñ la ñun bi Sëñ Tuubaa ndax diggante ak boromam lam fay nekkee ak la mu fay def suñu njariñ kepp la te ñuy sakkanal sëriñ bi kenn waru koo def ñun ñoo ci war a jiitu ñun taalibi sëñ Tuubaa yi kon dañ ko war a sakkanal ñun sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxaa képp lañ am moom la ñuy sagoo moom la ñuy tiitaroo ndax dañoo dem ba ñun taalibi sëñ Tuubaa yi képp moomatuñ ko julli keneen ku dul taalibe ba ci chrétien yi sax ñoom dañoo am mbëggeel ak cofeel ci jëmmi sëriñ bii kon ñun ñi nga xam ne ñoo ci jiitu ci daal bi Sëñ Tuubaa yi ñooy ñi ko war a njëkk a kon kàddu yooyu rek lañu amoon loo xam ne dañ koy yëkkati ngeen xam ne kon dañoo bëgg a tàmbali liggéey bi ñu xawoo Serigne Cheikh mu ñu agsi bu agsee nuyoo mbokk taalibe yi daayira bu ci ne danañ la woo nga ñëw jébbale sab liggéey. sëñ Pape Fall ñoom ay ko Ndakaaru lañ sëñ Pape bismillah sëñ ñoom ay ndaw lañ yoo xam ne. liggéey sëñ Tuubaa rek moo leen ñor ñoom ñoo nekk foofee ca parcelle nekkal fa sëriñ bi at mu jot ñu dajale seen addiya ba mat ñuy ñëw ñu ñëw sëriñ bi ren nag ndi ndigal bi dégg nañ ko waaye dañ am solo mooy liggéey bi ñu yor liggéey sëñ Tuubaa la kon dañuy ñëw jébbal liggéey bi ku ku fi sëñ mënta rek xam nañ ne mooy sëñ Tuubaa sëriñ Pape Fall mi ngi nii mooy jëriñ bi sëñ Pape jërëjëf sëriñ bi dafa wax ne mi ngi sant bu baax ci taxawaay bi ak yitte ji ak pastéef yi di leen suñ borom dimbali ñu ba dajeeg tawfeex Sëñ Tuubaa ñu toog ne tuuti xaar tontu la ak ñaan la bismillah fatu daayira fulkul masxoon sëriñ Abdul Xaadir Guèye sëriñ Abdul Xaadir Guèye. teg tawfeexi sëriñ Tuubaa ci liggéey bi. te noonu la koy waxee waxtu wu nekk. kon nag jërë ngeen jëf. kon nag jërë ngeen jëf. Maam wax na ko léegi. sëriñ Maam Mor wax na ko léegi. jataay yooyu ngeen doon dajale dajale liggéey bi. jataay yooyu ngeen doon daje da dajale liggéey bi. jóge jóge fa ñëw ba Touba andi ko. jóge fa ñëw ba Touba andi ko. ci biir kër sëñ Touba gii. ci biir kër sëñ Touba gii. loolee dara neenu ci. loolee dara neenu ci. lépp sëriñ Touba ngi ci teg bëtam. lépp sëriñ Touba ngi ci teg bëtam. sëriñ Mountakha mi it mi ngi koy yëg ci xolam. sëriñ Mountakha mi it mi ngi koy yëg ci xolam. bëgg na taalibe yi lool. bëgg na taalibe yi lool. ndax noonu mu koy wax jenn yitte rek la ndax noonu mu koy waxee jenn yitte rek la am. liggéeyub Serigne Touba bi dox bañ a laal suuf. liggéeyub Serigne Touba bi dox bañ a laal suuf. te yitte jim ci am moom Serigne Mountakha. te yitte jim ci am moom Serigne Mountakha. taalibe yëpp loolu lañ ci taalibe yëpp loolu lañ ci am. te loolu te loolu moo waral jotaay bii. ndax ñu bari yëgoon nañ ne bu ñëwee gis gi mën naa bañ a jàppandi ndax ñu bari yëgoon nañ ne bu ñëwee gis gi mën naa bañ a jàppandi tey. waaye kenn ku ne la muy wax mooy nan ñëw andi liggéey bi rek. waaye kenn ku nekk la muy wax mooy nan ñëw rek andi liggéey bi. kun fi fekk jox sëriñ bi yabal ko fekk sëriñ bi yabal ko nu jàppee ko sëriñ bi. ndax moom sëriñ mooy lépp. ndax sëriñ bi mooy lépp. kon noonu bu nu sëriñ bi yabalee. kon noonu bu nu sëriñ bi yabalee. ndawal sëriñ bi la doon ci yéen. ndawal sëriñ bi la ñuy doon ci yéen. doon seen ndaw ci sëriñ bi. doon seen ndaw ci sëriñ bi. lu nu sëriñ bi wax nu wax leen ko. lu nu sëriñ bi wax leen ko. lu ngeen nu jox nu jox ko sëriñ bi. ngeen nu jox nu jox ko sëriñ bi. ñaanal leen ci barkeem. leen ci barkeem sëriñ bi. kon nag jërë ngeen jëf. kon nag jërë ngeen jëf. nii rek la ko sëriñ Mountakha bëggee woon. nii rek la ko sëriñ Mountakha bëggee woon. liggéey bi bañ a taxaw. léggéey bi bañ a taxaw. nu ànd ko. nu ànd ko. yóbbul ko sëriñ Touba fa mu ko bëggee. yóbbul ko sëriñ Touba fa ko bëggee. loolu yitteeg Pastef rek moo koy def. te loolu yitteeg Pastef rek moo koy def. ndax sëriñ Muntaxa nee na xam na ne yitte ak Pastef mi ngi ci taalibe yëpp. kon dañ leen di gën a ñaanal rek dolli ca. nu gën a daje ak tawféexi sëriñ bi. ci liggéey bi. ak lépp lu ñu nekk. ñu gën a ñaan ñu gën a ñaan itam. kenn ku ne dellu ci jàmm. kenn ku nekk dellu ci jàmm. te ku dellu say xéewal yokku lool. te ku dellu yàlla na say xéewal yokku lool. ba liggéey bi gën a yàkkali ko lool. ba liggéey bi gën a yàkkali ko lool. ñu dellusiwaat fi nagari déwén. ñu dellusiwaat fi nagari déwén. fekk fi Serigne Mountakha. fekk fi Serigne Mountakha. ñëpp nu bokk jàkkaarloo. ñun ñëpp bokk jàkkaarloo moom. loolu mooy yéene Serigne ndax loolu mooy yéene Serigne Mountakha. mooy seen yéene yéen mooy seen yéene yéen itam. te barkeb liggéey bi attan na lépp. te barkeb liggéey bi attan na lépp. kon ñoo koy ñaan ci barkeb Serigne Mountakha. kon ñoo koy ñaan ci barkeb Serigne Mountakha. barkeb liggéey ak barkeeb liggéey bi. ñoo ngi sant ñëpp. ñoo ngi sant ñëpp. ñoo ngi sant jëwriñ yi. ñoo ngi sant jëwriñ yi. ndax liggéey bi bu doxee. ndax liggéey bi bu doxee. yittey jëwriñ yi la. yittey jëwriñ yi la. waaye ñi ngi sant soxna yi itam. waaye ñi ngi sant soxna yi itam. kenn ku nekk xam na ne daayira yi. kenn ku nekk xam na ne daayira yi. ak mbooloo yi. kenn jiituwu ci soxna yi. kenn jiituwu ci soxna yi. bu ñu wootee ñoom ñëppay wuy si. bu ñu wootee ñoom ñëppay wuy si. bu nu laajee ñoom ñëpp ay joxe. waaye nan xam na loolu yi. suñ borom mi ngi koy gis. Serigne Touba mi ngi koy gis. Serigne Touba mi ngi koy gis. kon ñoom it dañ leen di gën a ñaanal. kon ñoom it dañ di gën a ñaanal. yàlla yokk seen xéewal. yàlla yokk seen xéewal. te sàmm seen i njaboot. te sàmm seen i njaboot. yàlla def ci ñoom jub ak barke. yàlla def ci ñoom jub ak barke. ban gën leen a mën bu baax. tànk yi itam. tout tànk yi itam. ñoo ngi leen di gën a dénk ci waajur yi. ñoo ngi leen di gën a dénk waajur yi. di leen gën a dénk jëwriñ yi. di leen gën a dénk jëwriñ yi. ndax tout tànk yi kat. ndax tout tànk yi itam. lépp ngi ci seen biir. lépp ngi ci seen biir. dañuy wax ne ndaw dencub sunu borom la. dañuy wax ne ndaw dencub sunu borom la. ndaw ñi nag bu ëllëgee lépp ñoo koy yenu. ndaw ñi nag bu ëllëgee lépp ñoo koy yenu. kon na leen waajur yi taxaw bu baax. waaye nag ñu jaaral leen ci njàngum Serigne Touba. Serigne Touba daa wax ne ndaw ñi. nañ yittewoo ak jub. nañ yittewoo ak jub. nañ yar ndaw ñi ci jub. kon nañ yar ndaw ñi ci jub. Serigne Touba wax ne nañ jàng. jàng seen xam-xamu diine. jàng seen xam-xamu diine. ba mën a jaamu yàlla. mën a gëm yàlla. mën a gëm yàlla. mën a topp yàlla. mën la liggéeyal yàlla. loolu nag. waajur yi ci ci doom yi la. warteefu waajur yi ci doom yi la. lay doom yi ci waajur yi nag. lay warteefu doom yi ci waajur yi nag. mooy topp leen. topp seen ndigal. wéy ci seen waaw. wéy ci seen waaw. bàyyi seen tere. bàyyi seen tere. waajur yi xam na bu boobaa. waajur yi xam na bu boobaa. nañ leen di digal li leen sëriñ bi digal. di leen tere li leen sëriñ bi di tere. bu ñu bokkee doxee noonu yi. sëriñ bi bëgg. mooy la ci sëriñ bi bëgg. li sëriñ bi bëgg nu doxee nii. li sëriñ bi bëgg nu doxee te bun ni doxee. te bun ni doxee. danañ am ngërëmal sëriñ bi. danañ am ngërëmal sëriñ bi. bu amee ngërëmal sëriñ bi. aju yëpp faju kon na jërë ngeen jëf. sëriñ Mountakha sant na leen gërëm na leen. fu fi waay mën a jógee. fu fi waay mën a jógee. na nga rafet njort. na nga rafet njort. xam na fa nga jógee. xam ne fa nga jógee. ak la fa jëlee. ak la fa jëlee. ba andi ko ba andi ko. lépp Serigne Mountakha dana la ko defal ci liggéeyu Serigne Touba bi. lépp Serigne Mountakha dana la ko defal ci liggéeyu bi. Serigne Mountakha lu Serigne Touba lu mu def ci liggéey bi. Serigne Mountakha lu bi. nangu ko. borom liggéey bi ko. ful ko fay ko. ful ko ko. kon yal nañu ko yàgg a liggéeyal. kon yal nañu ko a liggéeyal. yal nañu fi yàgg a daje. yal nañu fi yàgg a daje. ci ginnaaw Serigne Mountakha. sant nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. kon nu muñandi ko rek. ba xéewal gi ñëw. ñu xewlu bu ko defee ñuy toog ak si itam jàll si jébbale seenub liggéey jërë ngeen jëf mbooloo mi yéen ñëpp maase leen tàllal amin Mbacke amin Mbacke amin mbak amin Mbacke amin Mbacke amin mi ngi mel ne am ak indi amin barke borom Tuubaa amin Mbacke

بلا سكري مستقيم حبت نفس والبراء عجائب في البر والبر لمدى بكونك مخدومي ولي أوصل النفع علومي وإنفالي وسري زكية لمن بك لي قادم عناي بما بالله أني

خليلا قديما بائقا جملة التبليغ لو دار أمدائي قديما مخاطبا وللغالب أمدائي لك المعجزات القرب يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع السبيل لقد كنت سفارا ثبورا ونازلا عليك سلامنا يا ما يجري لك الموجدات الخارقات التي بها أتى القبل من خير يا جملة الرسل لك سلك قزارا بذاق البداوة كما التقى بدر سام لمن أنزل الآية التي كتاب العزيز البين ينال قلب الفصل لساني والأوثان وعبد الملوككم وأولاد روحي ونفسي والبلد نوت ردياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجزماني وكلي بلا سفلي لا أنت الخليل لي ويا خير ذهبي وثرواك لم يخلق باطل فما كنت لا أنت الخليل لي ويا خير ثابت وثرواك لم يخلق باطل فما كنت لا أنت الخليل لي ويا خير ثابت وثرواك لم يخلق باطل فما كنت يسوركم مني حيث ما كنت يا مهيب waa بما يسره